dalal ak jàmm ci tv bi dé abonné go ñoo ngi lay ñaan nga abonné bul fàtte activer sa cloche de notification nga xamante ni lii saa bu ñu suñu benen vidéo di nga jot message bu lay wax ne dugal nañu vidéo ci PMTV jërëjëf. bu nit joxé bu nit ñëwé ci aduna yalla jox ko wërsel waaye jubut te ku ko topp sang ki mën a mucc ci moom mën a muccalee nit ñi mooy borom xam-xam waaye bu waa ji alal di jox nit ñi rek jox goo xam ne dafa leen soppi ay jaam góor ñëpp nga soppi leen i jaam su boobaa ñi mën a xàmmee ni lii teguwut ci oon rek mooy borom xam-xam mais ku amul xam-xam doo ko xam loolu yàlla wax na ko. na bi ko yàlla joxee alal muy jënd nit ñi ña am xam-xam di Muusa ñoo ne ah kii li muy def du dara waay way lakum sawaabullaahi xayrun liman amana wa amila saalihan waaye bu fa xam-xam nekkutoon ñépp sànku kon saa yu problème taxawee muskila taxaw xam-xam rek moo ko mën a moo moo ko mën a leeral moo tax kon góorgóorlu leen jamono jii nag boole ñaari xam-xam ak xew benn xam-xam doyut lo fi jang français diplôme bo meuna am ak bo boole ci diiné diiné mo xew loolu la yàlla dogal diiné xew diiné xew de te du sappi mukk moo tax boole leen ci liggéey ni jàng xam-xam ak diiné waaye nekk intellectuel boo xam ne bu la laajee farataay njàpp nga ne cinquante la du jeex da nga fi gis koo xam ne jàng na ba nekk ba am doctorat boo ko laajoon ni ñuy sangoo janaba xamu ko boo ko laajoon turi saxaba yi mënula cee limal cinq boobu xam-xam lu muy jariñ moo tax nag diine moo aye moo tax seen xam-xam bi boole leen ci diine te diine moo koy leeral diine tabaarakallaahu lim xew a tax sax léegi politicien boo fi gis buy def discours rek indi aaya xew waaye am na ci ñoo xam ne bu ñu jàngee aaya rek dañ leen di bëgg a rendi ndax dañ koy yàq waaye léeg-léeg nga dégg ci ñoo xam ne bu ñu jàngee aaya danga nga yëg ne lii faraatu ko loolu la yàlla dogal kon diine xew jàng leen seen diine yi ngeen xam ko bu wér li xew mooy génne ca ministère ba dem jiite ji jumaa ja ñooñ lañ soxla génne ca ministère ba wala génne ca ambassadeur ba dem jiite ji jumaa ja wala nga lal nekk ca di joxe dar su di jàngal nit loolu la yàlla dogal mooy xew jamono ju dafa am lu yàllay xewal alal xewoon na mais xewi na daraja xewoon na mais xewi na am doole di ko jaay xewoon na mais xewi na mais diine mooy li xew ba péncam yàlla ba ngay jël suñ losuma ci aljana diine du xewi kon na ñëpp dellu ci diine na ñëpp dellu ci diine diine rek moo mën a defar nit diine rek moo mën a jiite nit ki nga jël ay responsable teg ko ci kanamam jëlul nga koy utal caméra di si roya agi si aju yëpp moom yëg nga ne kiraaman kaati bii na ñu ngi koy xool lu muy defee lu muy defee caméra du sàcc du tappale du war ndax xam na li koy xaar ëllëg te bu ñëwee li koy xaar day ñëw rek lépp defal nañ ko nopp mu taxaw ci kanam borom mu ne ko iqra kitaabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba loolu nag ku diine ñor jaxatoo ci sa deret rek yaa am yaa mën a am yëg-yëg boobu moo tax kon jàng leen xam-xam nag leer la maam xalifa mi ngi encouragé nit ñi ci jàng wakun xilfa taxsilil ulumi wala takun muxillan bi ilmin min ulumi shariati moo tax kon xam-xam mooy lépp gis nga sax yéwén ak àdduna bi yonent bi ne ci loxol ñaar la ne ñu yàlla jox ndomba tànk ñu yore pouvoir bi ak ñu yàlla jox xam-xam yonent bi nee ne bu àdduna bi yàqoo ci jamono ju mën a doon bu ëllëgee ñaar ñi rek laa koy laaj mooy borom pouvoir yi ak borom xam-xam yi ñoom ñaar suñu baaxee lépp baax ñoom ñaar suñu bonee lépp bon moo tax mu daan wax ne sinfaani min yi ida saluhu saluha annaasu wa ida fasadu fasada annaasu alfuqahaau wal umara yonent bi ne ñaar ñii rek ñoo yore àdduna borom xam-xam yi tabaarakallaahu ak borom pouvoir yi ñaar ñii lu yàqu ci àdduna bi ñoo ko yàq ñaar ñii lu jag ci àdduna bi ñoo ko jagal moo tax ñoom ñaar jar nañoo bàyyi xel ci pouvoir yu rëy yi leen yi leen yàlla jox waruñ koo foyee waruñ koo foyee buñ ko foyee rek àdduna bi tukki buñ ko fooyee rek baadoloñ sonn buñ ko fooyee rek nit ñi torox muy boroom xam-xam yi dëggu maandu ragal yàlla jub ba bu leen kenn mën a nger fuñ gisee dëgg ne dëgg ngi nii yàlla jox pouvoir ñi am yërmande ci doomu aadama yi xam ne yàlla bindut nit ñi pour ñu toroxal leen mais dafa bind nit ñi pour ñu teral leen ci wala xadd karram naa bani aadama kon adduna bi jagam yépp mi ngi ci ñaar yi moo tax kon xam-xam dara melut ni moom ayaat yi tegtale nga ne leen xam-xam dafa bëri bokk na ci yàlla wax na ne sama yàlla gi man maa ko njëkk a seede na yàlla la bu ko ñëpp sama yoon nekku ci man seede naa ñaareel bi sama malaaka yépp boroomi xam-xam lañ seddee nañ ko mais mu ne ñetteel bi boroom xam-xam yi seede nañ ne man yàlla la mais tudd ñeneen ñi de borom xam-xam yi la tudd xoolal raa bi yàlla wàccee borom xam-xam boppam la njëkkee muy première mu jël malaaka yi jox leen numéro 2 jël boroom xam-xam jox leen numéro 3 ci shahida allahu annahu laa ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist ñaareelu laaya ji yàllaa ngi wax ne man yàlla may yëkkati darajaay ñi gëm ci ñu gëmut yëkkati waat darajaay ñi xam ci ci kaw ñi gëm. kon ñi gëm yàlla toujours ñooy gën a kawe daraja yowmal qiyaam ñi gëm mais ñi gëm rek yem si taamuñ xam-xam bu yowmal qiyaamee ñi am xam-xam ñoo leen ñu sut daraja ibnu abbas ne daraja ju nekk ak maanaam juróomi téeméer daraja la ñu rawee te daraja ju ñu nekk ak asamaan mi ngi nekk maanaam mi ngi mi ngi tolloog asamaan cinq cent daraja daraja ju ci nekk tolloog asamaan asamaan xam nga fii ak suuf ñaata la doxat juróomi téeméeri at la boo doon dox jëm asamaan bala ngaa yegg juróomi téeméeri at la مملا القران يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات درجات يويا جرومي تيميري درجه ني ام خم خم بوليكو گم يالا راوي نا ني گم يالا تا امون خم خم جرومي تيميري درجه كون لول كين خمو نيم تول نيتل بي فو بروبليم مسا ام تي جافي جافي بروم خم خم موي جوخي سوليسيون bu borom xam-xam joxe solution rek ni nga torox wala rudduhu ila ar-rasul wa ila uli al amri minhum la alimu lasina istanbituhu minhum yàlla neena na ba ngeen nekk ci jafe-jafe kenn xamul foy tek sa tànk ngir ak lëndëm yéen ñep gëlëm ngeen te ngeena jël masail yi delo ko ci borom xam-xam ya ta ki leen jité di sayyiduna muhammad su boobaa dana leen wax fan ngeen tek seen tànk ba kenn dootul gëlëmati suleymaan gisoo keroog bi ko balqiis waree gale si Takwa la woon ba nga nek yaman moy buru yaman Sulaiman nek ci Palestine mune ko dama bëgg nga gané si ma ko d'accord mun na ñew Souleymane ne gàngu gam doon toog ci palais ba fauteuil ba la bëgg kuma ko andil fi amul sori na digënté yaman ba Palestine avion amut auto amul ben waju am doole nek Guinée ifritun min al jinni ne ko mën naa la koo andil fii nga toog di atte balaa mi dee jot bala ngaa jël pause rek ma indi gàngu naa ji mu ne ko non bëgg naa lu gën a gaaw loolu waaye ki yàlla jox xam-xam muy professeur ba moo taxaw ne ko da ngaa këf de xulil sa bët yi bala ngaa këfaat ma indi gàngu naa ji wa qaala alladi indahu ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuka dafa xippi rek mën la gaawu naay pourtant loolu xam-xam la dañ cee yeggagul rek yéen ngi jàng yéen bu ngeen jàngee da ngeen yegg jàng ba ca kanam rek da ngeen mën a jëlee gàngu naayu Amérique ñëw indi ko fii ci Sénégal.